mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk su tur ak sa sant jamono toll na foo xamante ni jàngoro dugg na ci suñu biir léegi mu toll ci ñeenti weer ak lu topp ñoo ngi ci tey juróom ñetti junne ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ñoo xam ne jàngoor bi dab na leen ñoo ngi ci tey ci téeméeri nit ak juróom benn fukk ñoo xam ni faatu nañu ñu ñaan suñu borom mu yërëm leen te jéggal jàngoro boobu nag ñu di ko wax coronavirus yàlla rek a xam kañ la dul dal moom rek moo mën a aar moo mën a sàmm yàlla nañu sàmm ti jàppale ñu ci diggante bi nag ñu jàpp fii ci médiateur de la république ne waajal jot na pendant ñu ngi koy mën balaa soxla di ñu dab ci deret yi nga xam ni manqué na ci réew mi ba centre national de transfusion sanguine yuuxu ko retet ko ñu ne dañuy dajaloo ñu nag suñuy ñooñ waa réew mi yëpp ñu nekk ci administration bi ñu nekk ci ASC yi ñu nekk ci bàjjenu gox yi ñu nekk les randonneurs professionnels qui sont à Dakar waa médiature seen bopp waa trésor ñu bokkal batiment bi ñu ñëw dajaloo samedi bii di ñëw incha allah rabbi tàllal suñu loxo le 25 juillet 2020 maye suñu deret ngir ëllëg bu ñu ko soxlaa rek mu jàppandal ndax kañ lay jëriñ xamuñu ko mën na nekk man mi di wax ak yéen mën na nekk keneen ku may déglu yàlla nañu yàlla sàmm te sàmm Sénégal te musul ñu ci mbas mi jële ko fi abadan